li mu juróom fukki million yu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké doon jàppale ñi loru ci mbënd mi ak wale bi fanweeri fan ci weeru août 2021 lañ ko jébbal gouverneur bu Njaareem Serigne yu Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah teewal Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mi yor kàddu xalifa général des mourides moo jébbal chèque bi gouverneur di góor gi mbay muy xaaj bu jëkk bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké dugal ci li ñuy wooye plan Orsec ñaan gi moom moo ëpp doole te moom la kenn mënut a valoriser mm-hmm. ndax euh, nit ñi mën a génn ci diggante bi ak euh, euh, jafe-jafe yi mm-hmm. mën a gën a amaat seenu dal mën a sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey réew mi am jàmm aku dal gouverneur bu njaareem nag rafetlu lool jëf ji wax ne kenn du ne guléet la ci Cheikh mun Mountakha mi nga xam ni waxtu wu nekk mi ngi ci wetu askan wi di leen taxaw ginnaaw loolu itam mu xam ne ñëw na lool fi ñu ko soxlaa te ko te itam danañ ci jàppale askan yu loru yi nga xam ne dañoo mujj sax génn seeni kër ginnaaw bi mu xam leen ne danañ ko séddale kem niñ ko diglee sant na sëriñ bi ci turu gouvernement bi nga xam ne ñoom la teewal ci diwaanu njaareem du ma def lu dul rafet rafetlu geste bi sëriñ bi def hmm. du ma ne guléet nag lu ñor réew mi rekk ñor na sëñ Muntaxa Mbàkke loolu moom ñëpp seede na ko ñaanam du ko fekke dina ko ci ñaan lu mu war a ñaan ñaan ko lu mu war a wax wax ko lu mu war wane nit ñi def ko wane ko waaye lu mu war a joxe tëm joxe ko loolu ndax lu ñu daan dund ak yële passé fi mu nekk nii jóg dund fukkam gis ngeen xale yi ci loru léegi rek seen fi ngeen toog am na leneen lu ci bees lu ñëw fekk ngeen fekke ko nga xam ne loolu ay loraange yu xaw a tar la muy jeneen jëf ju dolliku ci jëf yu takku yi nga xam ne Cheikh mun Mountakha Mbacké mi ngi koy def saa ne ci jàppale askan wi na mu ko waxee woon jëf topp na ci ni ko Cheikh Bassirou Mbacké mi yor doom leerale woon bi muy tënk programme màggal atum 2021